dikkati na coow lu coow lu tribune yéen a kaay ne ma waa jàngee day sàcc bi da koy bañ yéen a kaay dee média bi ne ma waaye luñ ci mënti waxit moom président ma Sall day gaa yi sës ko ci miiru wis bi rax ci dolli nag di ko ci bërëg moom président yéen a kaay bi ne ma fond force covid preuve bi de coow la nag ci boppam moo jeexagul tribune ne ma en tout cas sénégalais yi daal ñu ngay avertir président Macky ndax bi le scandale la gaaya naan suul gaz du ko teree xeeñ scandale bi day amul lenn loo xam ne mën na koo muur scandale bi ña koy débat ci marché yi scandale bi moom la ñuy waxtaanee ci biir wota yi scandale bi même l'école yi moo fay waxtaan rapport bii nga xam ne cour de kont def na ko ci alal juñ leen joxoon ne leen wasaare waat leen ko ci biir sénégalais yi ngir ñu mën a mucc ci wopp coronavirus bi alalu mbas moo mee def ci seenu gafa ma ne la coow li xal wuy lakk daay la te kat ne ko yow président i Sall am nga génn intérêt de mooy ña nga xam ne ñoo def càcc gu rëy gii ñu yóbbu leen ca kanamu yoon ndax nag gaay ci boppam loxo ci poos lan leen jàppee nii sàccee ñuy tibb nag ci sunu alal tibbin gu doy waar ñàkkub yërmande ci sénégalais yi ñuy dompat néew te sax sàll ngaari lam tooro burgéde ñii ci boppam boo leen jébalee yoon mën naa tax sénégalais yi xaw a fàtte fàttelu lépp loo xam ni jaar na fi ciy luubal nga ni woon yaa ci teg sa coûte waaye itam lépp loo xam ne ab tële la ci sab gestion yow président Macky Sall askan wi ne woon mënoo ko bés boo tàbbalee ñii yoon askanu Sénégal mënees na laa gëstuwaat Alioune Tine ci yéene kaay bi ne laataa ñuy àgg ak ñoom yoon jagat jagatee dem ñoom ministre yi nga xam ni dañ ni leen nii loxo ci poos Alioune Tine ne nañu démissionné tekki seen ndombal tànk au nom nag de la séparation des pouvoirs l'indépendant yéene kaay ne ma mbaadu ay topp da cay bëgg am ndax Benno Bokk Yaakaar ci boppam xam na ni ab information judiciaire day daanu ko ubbil wàlluk askan wi waaye nag di avertir ne ba tey ma ne la yoon taxagun leen nan def ndànk le quotidien le quotidien en tout cas moom Sall ngaari lam tooro Bourguédé président Macky Sall mi ngi ci pression société civile oo politicien woo askan weeg ñëpp ci yam ña ngay laaj président de la république mu dal ci kaw gaa yi waaye askan wi moom la ñuy sàkk moom moo di moom parquet bi mu daal di cay dugal loxoom bennoo moom nee na yëg na nee na daal je prends acte critique yéene kaay mbaadu président en tout cas moom président concam la ñu ne moo ko teg ci dossier de bii teggi na ko ci moom fayallaahu critique yéen kaay naan leen yéen ñi jël ci lii ma xamal leen ni moom président Macky Sall day la mu xamle leer na nee na amu ci par par loo amul kenn ku ñuy suturaal képp koo xam ni sa loxo laal na ci lii yàgg yoon yéen koy layoo ci Sud Quotidien ne ma moom wal day dafa sooboon loxoom ci mbir mi bëgg nag mu daal di leer képp koo xam ni taxee nga ci yoon daal di lay teg loxo topp la yeewi askan wi fekk na ko ci boobule combat ñu bëgg nag taxawal haute cour de justice boo xam ne bépp ministre bu mbir mi dab daanu la ci wili àndee sursu aanee mbir mi moo amatul laam-laamee fay rek mbaa dem kaso sàkku nan nag ci ministre de la justice mu bi ab information judiciaire lu toll nag fukk ak ñaar ci doomu aadama daañu leen toppee nag jël alalu askan wi ci loo xam ni tegunu ko fen agent yi nga xam ne nii dañoo fute fay rek bu ñu fayul tàbbi kaso am na ci ñoo xam ni nag daar daar daañu leen déglu atte leen ca chambre bu discipline financière bu cour des comptes Walf ko di jéemeel ni kuraan maan xanaa déggoo moom président Macky Sall kay saa si ci mbir mi dara askan waaye it ay preuve taxaw fi yoo xam ni mënta def lenn leneen lu dul nag daal di jébbal ñi yoon bés bi la journée mbaadu nag yoruñu ab procureur obstacle ndax nag am na projet boo xam ne tegoon nañ ko fi de ab parquet financier boo xam ne nii mooy atte sanru mbir yi boobaak léegi boobule projet ma ngay maxe ci bureau ministère de la justice yéene kaay bi ne ma of nag ci boppam nee na moom ña nga xam ne épinglé na leen mooy doon partie civile ba ni nit ne ma loo ci manti waxit coow la ca pëndub teen ba gaañ amul baax la de ana gouvernement ci bii coow la boo xam ne daanaka li ko gën a rëy Sénégal bariwul lu jege juróom-ñett ci ay ministère ak benn ci l'hôpital ñu daal di leen di niib ne xaalis ba nga xam ne askan wi ci boppam ñoo ko nattaloon seen bopp ngir ñu fajaat ci askan wi ngir ñu mucc ci mbas mi xaalis boobee la ñu ji ñii ne dañ koo sàcc détourné ko boobaak léegi gouvernement bi def tekk askan waa ngi wax média yaa ngi wax waaye ba tey gouvernement gi kenn déggu ko ca li tax yéene kaay bi njortu ne ay poursuite buñ koy waxeet ay naxembaay la rek l'observateur daal di jox kàddu Mansour Faye moom càmmiñal Marème Mansour Mansour daal di xamle ni mënumaa nuppi te duma nuppi ndax nag ñun ci boppam la ñu jàppee ay bëyub sarax jël ñoo xam ne ay gor lañu taqal leen tilimal leen ba marday taali ci loo xam ne ay erreur dong la Mansour ne lii teguñu ko fenn te nag ñenn ñoo xam ne taqal nañu ñu ay casquette politique la ñu yor ñu wax ko te Fatou Mbaté ma Mansour ne dañuy làqu ci yenn ci ginnaaw institution ngir nag faagaagal ñenn ñoo xam ni jàppee nañ leen yaay ay adversaire Mansour Faye ne sama ginnaaw bandang jëlu ma laalew ma taqeewu ma tribune yéene kaay ne en tout cas ku ci jël moom bul nelaw ba yandoor ndax président Macky Sall narta baale faw nag ñu tàbbi ak ñoom ca yoon ngir ñu goxiwaat alaluk askan wi fay mbaa dugg kaso libération yéene kaay na ma Sénégal kër gi metti na lool wutub xaalis bu lewul bi metti na lool juróom ñaari téeméeri million la ñu sàcc lu toll ci ñaari téeméer ci sénégalais te coow li nag njiital crypto investissement day lañ ci daal di jàpp ndax groupam bi lañu njort ne moo sàcc alal ji ci sénégalais yi yéene kaay bi ne ma bul dem duwaan ñaar fukki kilo ak juróom bu bu moom la jàppee ca Kaolack turbine yéen a kaay ne ma ma ne la fu nu jëm ak réew mi gars yi nag ku nekk façon ba ngay naxee yéen a kaayub dee média bi ne ma zakkilu laahi sow moom it day benn tànkam ma nga ca rëbës ndax nag dañoo njort ne dafa escroquer Abdoulaye Sylla Ecotrans lu toll ci juróomi milliards ndax nag Abdoulaye Sylla da ko yónnee juróomi milliards ci trésor bu Togo ngir nag dugal loxoom ci opération boo xam ne dañoo war a bokk ay part ci benn banque ndeke waa ji daal banque ba da ko jëndal boppam téeméer boo jël juróom fukk ak ñeenti action ya mooy boroom nag liggéey nice fàtte Abdoulaye Sylla ci Sénégal naka la teg tànkam ci réew mi dig jàpp na ko réew mi yëngoo na nu ne réew mi ko di jeene ma docteur Alfousseyni Gaydé ña ngi koy menacé saa si tembe nag bakkanam ma nga ca xottu gerte le mooy yéene kaay ni docteur Alfousseyni Gaydé jog na yuuxu xam le ni nag bës du jël beneen ba te fëggunu ci ab otoom fëgg boo xam ne teey na xel day jot ay menaces réew mi ko di jeene coow li coow li moom moo di ordre des médecins dañu ne cell waxuñu nag ci menaces yi nga xam ne kenn ci ñoom ma ngi koy jot l'enquête ko di jeene waaye nga xam ne ñi ngi leen di tàbbal kaso nguur gi mel ni ku yor dooleem képp ku wax ñu yóbbu la ci biir ndungu siin l'enquête quotidien mandargale ko Papa Alé Niang Fadilou Keita professeur Cheikh Oumar Diagne Abdou Karim Gueye xurum xàq yéene kaay bi ne laataa ñooñu gis nañ fi Ousmane Diagne mi nga xam ne ab reetaan la def ci partage ab une ma nga ca kaso ba yàgg na Papito Kara mi doon jéem a revenu yóbbu ca kaso ba yàgg na l'enquête mel ni ku sampub laaj ci ban Sénégal la ñu nekk tribune yéene ku naan koon en tout cas Sénégal goo xam ne mouvance présidentielle bi de saa si temba boo moytul pour na ca am coalition Benno Bokk Yaakaar ci tas tàll nar jëm ndax nag gaay yi nga xam ni ñoo yàgg ànd ak président Macky Sall day la ñu xam le moom moo di saa si tembe waa AFP APR parti socialiste LDP yi teeg réew mi ñoom daal lu duuf ci nag bi ñoom la ko président Macky Sall di séddool fàtte ñi nga xam ni ba muy metti moom mooma woon lee l'info yéene kaay ne ma lu mu metti metti bul fàtte ni teer bi yàgg naa daw ci réewum Sénégal waaye boobaak léegi tey laa lay xibaar ne amul benn contrat boo xam ne dox na diggante état bu Sénégal ak bi libération ne ma te nga jàpp te tënk li te tëjee ko moom moo di fii ci Afrique sowu jan ñi ngi fiy jàpp ay xale di leen jaay ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm